kilifa ci parti boobu di APR nekk maire ca Diarekh euh, tey ñu am mbégte di ko recevoir ci émission Faram Facce ak télévision Futur Média madame le maire maa ngi nuyu. maa ngi lay euh, di la gërëm ci invitation bi. Mhm. di nuyu mbokk Sénégal yi ñuy seetaan yépp. Mhm. Euh, fii ci biir réew mi ak ci diaspora bi. jërëjëf mhm. madame le maire euh, mu mel ni nag ñi ngi dem ci mandat bu mujj bu président Macky Sall. amuloo dara. loo ci euh, rëccu ndax ku ne gis na taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ci ci opposition bi ku ne gis na itam euh, taxawaay bi nga xam ne taxaw nga ko ba nekk maire est-ce que bu ñu génnee ci premier mandat deuxième mandat amuloo ci ndomb tànku ministre walla bu député walla loolu mbaa du am dara lu la ci <laughs> déranger. <laughs> merci beaucoup xam naa mën nga bëgg. Euh, yëngal euh, comme ni ma wax léegi rek danga may may d'abord ma jaale sama mbokk waa Fatick yooyu ah, ci xew-xew boobu am foofu noonu may jaale toute la famille mhm. Koyta bi nekk Mbuubaan ci biir commune Fatick di leen di ñaan yàlla na yàlla euh, may leen xolu muñ mais tamit suuf sedd ci kawam mhm. euh, ci li nga ma laaj nag Pape ba dama jàpp nekk rek regret moom man awma ko ci dara ndax engagement politique engagement la. e bu ñuy engagé wu je pense que y des aspects macro yi nga xamante ne ñoom ñooy transcender même les les les désirs personnels wala mhm, individuels. Mhm, ba tax na te jii nii euh, mës naa ko rappeler fenn euh, sama fierté d'abord mooy gis euh, le Sénégal émergent nekk di nekk une réalité partout dans le Sénégal des profondeurs. ma mun ci lister par exemple une commune comme Diarek fu ma nekk maire nga xamante ne xëy na sama position tax na tey jii nii lépp lu nga xamante ne nekk na ay ngëneel ci ñoom euh, ñu ngi koy jot luy dem ci wàllu ay réalisation yu bëri. dem d'accord man li ma li ma li ma laaj rek fi ma ko teg. madame la maire laa bëgg a wax. non c'est important man fi ma ko teg rek. mooy fi ma ko teg mooy sa sa sa euh, bu fekkente ni ci politique la ñuy wax aussi xam nga politique euh, ay responsabilité daf ci am solo. Euh, tey jiite woon nga COJER d'habitude daan nañu gis sax au temps de Abdoulaye Wade wala peut-être d'Abdou ñi nga xam ni ay ay ay ndaw lañu après ñoom la ñuy promouvoir ñu dem comme ministre de la République euh, ñu gis ñeneen ñoo xam ni nekkuñu maire seen seen base politique demewul noonu ñu nekk ministre euh, loolu amoo ci benn problème. papa amoo ci problème sincèrement. doo ci jékki-jékki nga ni mii daal. man wax jooju li ma ci xalaat waxoon naa ko et foog naa loolu yàgg na sax def na une donc man li may wax rek mooy ab ndaw laa boo xamante ne man maa choisir l' alliance pour la république. Ah. maa choisir le président Macky Sall comme leader. waaw donc man maa jàpp ne ko aussi ba fii ma ak yow vision bi nga xamante ne moom la teg pour Sénégal doy na ma te ñor na ma ma ci ànd ak moom ci principe yooyu noonu. Mhm. léegi nag leneen loo mënti di xalaat aussi que politique la wala keneen mën ko di ko xalaat lii moo waroon am amul. man je pense que stade boobu naaw ne dépassé naa ko. man li ma nekk di wax léegi nga ko mais que du problème compétence ci yow. Euh, Euh, compétence waaw ci naka. waaw compétence rek parce que xëy na compétence yi bu bu yi bu fekkoon te ni daje na ci yow xëy na président du ñàkk. <laughs> xëy na dañ maa bëgg a ñenn ci xëy na dañ maa bëgg a rek mais euh, li ma mën a wax daal. waaw mooy ne que euh, fonction direction général waaw moo gën a métti fonction ministre. parce que c'est le volet technique li nga xamante ne moom la ñuy liggéey di jox ministère yi. donc nekkuma di jaay sama bopp mais man bëgguma sax commenter loolu ba sori ci. waaw mais mais c'est important aussi bëgg naa xam rek ndax problème mu li ma mën a wax mooy <laughs> Pape Ngagne yaa ngi may dugal ci loo xam ne bëgguma ci dugg. ndax lan mooy li ma mën a wax mooy ba jàng jotee Thérèse dafa jàng université Cheikh Anta Diop laa. génnee sociologie laa def def sama master science politique yaa ngi dégg jaar naa assemblée liggéey. Euh, fu ñu jóge jóge foofu dem direction général casier tout petit léegi nag bi fu ki nga xamante ne moom mooy décider lu mu décider man sincèrement Pape man aw ma ci lu ma ci commenter aw ma ci lu ma ci sori. xam nga li ma gën a neex mais li nga mën a li nga mën a commenter mooy. gis nga fi ay nit yoo xam ni ñii nommé nañ leen par exemple euh, ministre euh, de la jeunesse wala par exemple ministre leneen. mais nga xool sa bopp xool sa sa engagement xool sa compétence mais war nga xool nii ñi lii kat. mais léegi bu dee seen wërsëg la nag. d' accord loolu moom amul ñu ci mën a wax. waaw bu dee seen wërsëg la amul dara luñ ci mën a wax. bu dee seen wërsëg la amul dara man li ma gëm mooy ne man. sama mais man dama jàpp ni rek nomination yi président dina ko teg au moins ci compétence gis ni kat kii dafa gën a compétent keneen. bon loolu xëy na président moom mooy xam liy déterminer vraiment. ses choix voilà wax nga ko léegi 13. Euh, muy uh-huh. violence yi nga xam ni moom moo am au-delà de violence bi nga xam ni note nañu ko ci Fatick muy sa dëkk di dëkku uh-huh. président uh-huh. Euh, de la République euh, ñi ngi gis nag violence yoo xam ci tout tànk yi la. Euh, muy ñi nga xam ni daanaka ñoom yow la ñu leen dénk euh, bu yàggul dégg nga ci benn sëriñu daara bu ñuy wax Mohamed Gueye dégg nga ku ñuy wax itam tubaab boobu ñuy wax Olivier Sylvain mm-hmm. euh, ba tey jël nañu mandat de dépôt ci loolu nga xam ni moom la ñuy def ndax loolu itam aar bi nga xam ak taxawaay bi gouvernement bi war a taxaw ci tout tànk yi est-ce que bu ñu ko defoon ci encadré leen yu mel nii dina am pour yow Pape situation bi nga tudd dafa nekk loo xamante ne dafa ñaaw ñëpp ñu ko mm-hmm. mu nekk loo xamante ne aussi dafa dafa dafa fréquent léegi ci réew mi et puis ngay gis aussi dafay mel ni daal nit ñi amatuñu benn humanisme benn euh, nu mu tudd sax yërmande et au la même man je que ça me parce que damay jàpp ni que xëy na ñooñu seen am li def si nekk si ñoom nit loolu lañ génnee pour ñu mën a tiim xale di ko def yenn yi. Euh, mu nekk nag loo xamante ne vraiment bëri na ci biir réew mi comme ni ma ko waxee léegi mais euh, li nga xam ne moom laa ci mën a wax. mooy te dama koy wax fii ci TFM ngir yàlla war a suulaay assemblée nationale dafa voté benn loi. Mm -hmm. criminaliser viol ak pédophilie. Mm -hmm. que la loi s'applique dans toute sa rigueur. man loolu laa nekk li nga xamante ne loolu laay ñaan képp koo xamante ne jàppati nañ la ci façon yooyu na loi bi dal sa kaw amul négocier amul masla parce que nag affaire bi dafa bëgg a jéggi dayo te ku ci nekk da nga koy xoolee ni sa doom bi nga xamante ne bu doon yow la avenir xale yi la ñuy yàq mais au delà de ça sax toute une société la ñuy yàq. mais mais mais man man man man euh, euh, nga baal ma 13. Mhm. li ngay ñaan loolu lu ñu voté loi la je pense que lu ñu voté ci assemblée nationale la criminaliser loolu nga xam ni wax nga ko muy viol ak pédophilie. Mhm. loolu waxuñu ko jàpp naa ne ñi nga xam ne ñooy attekat yi te ñu teg euh, loi bi ci seen loxo li ci war dinañ ko def. Mhm. yaakaar naa jarul ñaan ak leneen li nga xam ni mooy seen seen warugar ci loolu laa bëgg taxaw ci ndax xale yi càmm gi nga xam ni war na ci ñoom. état bi nga xam ne yor ngeen ko rawatina petite enfance bi ñu la dénk. ndax taxaw nañu ci xool xale yi ba loolu ñu tàbbi euh, loolu dal ci seen kaw bañ a dal ci seen kaw. xam nga tey Pape bu ñu duggee côté petite enfance. Mhm. ñi ngay dégg ñuy wax ne ñëpp dañ leen a sàkku wala dañ leen a def lii doo dégg ne école lañ leen ko defee wala sax pour nga dégg ne sax ci benn casetu petit wala benn école maternelle wala feneen foo xamante ne ci structure petite enfance xam nga loolu déggagoo ko. ça veut dire que tey au-delà de la responsabilité. donc petite enfance daf ci boolewul daara yi. non daara yi du benn champ d'action yi du benn. Mhm. moo tax ma ne la au-delà de la responsabilité nationale bi nga xam ne moom la état yor. mais aussi enseignants yi dafa am benn responsabilité boo xamante ne am nañ ko te xam nañ ko. Mhm. par exemple Pape boo yóbbee sa doom mu jàngi ku ko xamul bu buggee dem ci école ba récupérer ko ne ko par exemple papam moo ma yónni pour ma jël ko du ko bàyyi mu ñibbi te loolu dafa fa bokk ci benn forme de protection bi nga xam ne ñu ngi koy def ci école yi. Mm-hmm. gardien yi nga xam ne ñooy nekk ci école yi mais nu ñuy saytoo xale yi di leen di xool lépp loo xamante ne nekk na ay jafe ci ñoom ñu koy teel a détecté pour wax ko nit ñi. Mm-hmm. loolu dafa nekk loo xamante ne moo tax ma ne la côté petite enfance vraiment ñi nga xam ne ñoo nekk ci structure yi muy jàngalekat ak keneen ak keneen ñoom ñëpp ma leen ciy sant bu baax a baax ñu ngi ciy def seen liggéey. Mm-hmm. léegi nag xam nga fon la affaire bi complexé. bu ñu nee petite enfance ñii dañoo am seen doom yóbbu casier tout petit ñii am seen doom yóbbu daara ñii am seen doom bàyyi si kër yi ñii am seen doom bàyyi leen sax ñuy taxawaalu ci mbedd bi ñi am seen doom suñuy jaay marché yóbbu leen donc ce qui fait que environnement yi xale yi di évoluer ñoom ñoo am différence yu bari ce qui fait ku nekk li lay exposé Euh, day day day xaw a day xaw a day xaw a day xaw a bëri. doom yooyu ak fu ñu mën a nekk itam. seen seen seen protection ci laay ñëw. Ah, seen protection ci loxo état ak fu ñu mën a nekk seen protection ci loxo état la nekk. ci loxo état la nekk mais la protection des enfants man je dis que la responsabilité est partagée et partagée dans le sens où. état am na li nga xam ne ay garde-fous par exemple ministère de la femme may nuyu suñu ministre madame kii Ndeye Saly Diop Dieng am na lu ñuy wax euh, code bu bees bi nga xam ne moom la ñu teg pour la protection des enfants avec une approche holistique approche bi nga xam ne aussi dafa inclusive boole ministère yëpp muy justice di intérieur di ministère de l' éducation nationale ak ñëpp pour ñu xool loolu nu ñu koy songee. Mhm. mais au delà de ça comme li ma wax léegi rek. gis nga pap lu état di la xoolal xootal di la protéger sa doom te yow si biir kër gi. xooloo fa mu fanaan xooloo fa mu tëdd xooloo ñan lay waxal xooloo ñan lay àndal ba ci tonton yi nga xam dañuy dugg si si biir kër yi sax di uuf xale yi di leen di fob di leen di raay nga foog ne mais lépp day xew ci biir réew mi léegi. Mhm. donc moo tax ma ne la protection bi état na gën a góor góorgóorlu def lu mu mën parce que nag question bi métti na. ñun aussi au niveau des structures travail de sensibilisation bu ñu gën a mën renforcer ak alerter les enseignants les éducateurs ñu gën ko def mais tamit parents yi nañ gën a xof. parce que tey jii nii même bu fekkee da nga xëy liggéey yow xamoo ñiy ñëw sa biir kër sa ginnaaw xale bi dem diggante kër gi ak boutique gi lu ne mën na fi xew mhm. donc moo tax ma ne la dafa compliqué mais ci lépp lépp mooy moo tax ma njëkkee léegi ci daan bi mhm. ku ko def boo xamee ne boo ko defee ñu daan la daan goo xamante ni illaa yow mi diini say mbokk dootuñ la gis dootoo ko xalaat a def mhm. parce que nag il faut nit ñi def euh, approche yi nga xamante ne il faut ñu durcir les parce que aussi maslaa gi dafa bëri beneen fee bi may daane leen da ngay gis ci biir kër mbir xew ñu koy nëpp nëppal naan nijaay ko def wala tonton moo ko def wala am mag a ko def parce que lan y a réalité sociologique qui la là il faut encadrer il faut ñu nëbb bu ñu tas mbokk yi mais au nom de quoi. loolu aussi il faut ñu ñi wax ci nëpp nëppal boobu.